alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baadu fasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante borom bi tabaraka wa taala julli sëlmal ci suñu yonent bu tedd bi di muhammad ibni abdillah di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc mook waa këram ak ay àndandooram ak képp koo xam ne topp na seenu njub ba kër bis pénc gannaaw loolu suñu teewaay ci jotaay bii tey nekk na lu ñu yëgal mbégte yëgal ñu kontante bu baax a baax rawatina ba ñu fekkee jotaay bu mu bindoo sax noo xam ne sut na li nga xam ne moom lañ doon jort ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru màgg wi nga xam ne si dañ nekk di weeru koor di ñaan yàlla nim ñu ko fekkee loowee mu wërsëgal ñu koor goo xam ne gu ñu nangu la ak ay naafila ak i jaamu yàlla gannaaw loolu ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne opération Mur Say Cër ñu ngi koy liggéey ci wan nit ñi li nga xam ne moom moo nekk ci muuraay ak di leen ci sensibiliser ak jéego yu mag yi nga xam ne mi ngi ko ciy def ak réussite yu mag yi nga xam ne mi ngi ko ciy am ñu ngi leen ci félicité bu baax li leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq yàlla wërsëgal leen sabaat thème bi nga xam ne nag moo nekk suñu kanam mu nekk participation boo xam ne lan lañ koo joxe ci journée bi séq ko ak suñu kilifa suñu mag soxna Roqee Souleymane Gueye xanaa doon nañu neex lool sax ñu doonoon koo xam ne dañuy toog rek di taataan li nga xam ne moom lay joxe waaye comme moom mooy suñu kilifa bu sàkkoo ñu jiitu ci thème bi duñ ko ci mën a gàntal ba loolu moo tax ñu ci jiital suñuy kàddu xanaa li ñuy njëkkee ci thème bi rek te muy thème boo xam ne dafa jëm ci alxijaab alshar'i alxijaab alshar'i xëy na doon lañ koy tuddeewagum ba ci kanam ndax ñu bari dañu naan voile islamique te xëy na dinañ gis ci kanam loo xam ne moom moo gën a yaatu loolu dañuy njëkk a yëkkatib laaj di wax ne xijaab boobu ci boppam ndax dafa doon benn aada rek boo xam ne dañ koo xamee ab xeet wala nag dafa nekk benn culture boo xam ne moom it culture ñenn la wala dafa nekk benn règlement boo xam ne yenn association ñoo ko moom wala yenn centre ñoo leen moom wala nag ndigal la loo xam ne lu jóge la ci suñu boroom ab laaj la buñ samp ndax dafa nekk culture wala dafa nekk aada wala dafa nekk règlement ci yenn ci ay association wala nag dafa nekk ndigal loo xam ne ci suñ borom la jóge alhamdulilah ndigal la loo xam ne si suñ borom la jóge su leeree ne ndigal la loo xam ne dafa jóge fa suñu borom danañ sampaat beneen laaj mooy ndax ndigal loolu suñ borom daf koo sant mag ñi bàyyi ndaw ñi wala daf koo sant ndaw ñi bàyyi mag ñi wala nag daf koo sant ñi nga xam ne ñoo faatu buñ faatoo ñu defal leen ko wala nag daf koo sant ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dund gi dund boobu laaj la ñu ne ñëpp mooy kon daf koo sant mag ñi ak ndaw ñi sant ko ñuy dund laata ñuy yegg ci di ko defal ñi nga xam ne ni ñoom ñoo faatu kon loolu leeral na de xijaab suñ ko waxee ci boppam ndigal la loo xam ne dafa jógee fa suñ borom tabaraka wa taala mu jaarale ko ci làmmiñ bu tedd muy làmmiñu suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant ko mu jottalee ko ci anam ba nga xam ne moom moo gën a rafet moo gën a matale waaye moom moo gën a tedd te mooy ba mu ko waxee yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna dalika adna an yurafna fala yudayna wa kaana allahu gafuran rahima mu ne ko yow yonent bi waxal say soxna waxal say doom yu jigéen waxal jigéeni jullit ñépp ne leen nañ sàng seen yaram loolu de moo gën a jege ci ñu xam leen ba duñ leen lor su fekkoon ne borom bi tabaraka wa taala daf ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam digalal say soxna te yam ca pour ñu jëf-jëf ji yaakaar naa ku bëgg a royate ay soxnaam te roy leen nekk sax loo xam ne lu war la danga jëf-jëf jooju su fekkoon ne nit ki bëgg mbaax rekk mu ngi ci moom dégg loolu dana sawar lool ci taxaw ci ndigle loolu mu romb foofu nag ne ko waxal jigéeni jullit ñépp kon ku des kan moo des ku doonul jullit xanaa waaye kuy jullit ku ne dugg na ci woote bii nga xam ne woote bu tedd la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko woo yonentam aleyhi salaatu wassalaam jox ko ci message bi mu jottali ñu ko jottali wuñ ba gën a rafet loolu su réelee su fekkee leer na si la ñuy xamee ne diiney lislaam kat kon diiney lumm la waaye du du diiney ay pàcc-pàcc ni nga xamee ne noonu la suñ borom digalee julli digalee ko woor digalee ko yeneen jaamu yàlla yépp noonu la diglee li nga xam ne moom mooy xijaab mu jaadu ci jullit bi kon mu jël léppi diine te bañ a bàyyi lenn borom mu ne afatuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baad ndax nag da ngeen di jël lenn ci li ñëw ci téere bi ci ay digle ki tere nag bàyyi li nga xam ne ni moom moo ci des loolu nekkul loo xam ne mooy li war leneen li nga xam ne mooy leeraat mooy saa yu leeree ci jullit ne lii kat santaaneb sama borom la dootul amati lu muy waaj dootul amati lu muy xaar waaye la muy def rek mooy njëkkalante dem ci ndigle loolu nga xam ne ci borom asamaan ak suuf la jóge loolu moo tax ñu gis saxaabiyaat yi ñu àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo xam soxnaam yàlla ak jigéen ña nga xam ne ñoo dugg doon ci société boobu yépp ba ndigle li wàccee ñoom ñépp dañoo njëkkalante ngir taxaw si pratiquer ko ca na nga xam ne noonu la gën a gaawee ku ci nekk ak moyens yi nga xam ne moom moo tege woon sa kanam waaye layoo xaaroo suba xaaroo ngoon loolu nag daanaka mooy méthode bi nga xam ne moom lañ gis ñi nga xam ne ñoom ñoo wuur wuyu si woote bu opération muur say cër di ko doxalee léeg-léeg ngay seetaan lenn ci seeni vidéo gis koo xam ne dafay leetu sax ay mèche waaye suñ ko leeralee ne di ndigleeb sa borom la si saa day njëkkalante dindi mèche yi ba njëkkalante rek jël kol gi muuru kon loolu nekk loo xam ne nii lu am solo la su loolu leeree it dinañ soxla woo xam ne suñ boroom tabaraka wa taala de lim jublu ci xijaab mii doonul rek ab muuraay boo xam ne nit ki daf koy jël muur ko boppam wala muur ko yaramam waaye nag am na yeneen ñaari mbir dolli ci bii muy ñett yoo xam ne dafay dugg ci xijaab bi nga xam ne moo ci jiitu mooy alqaraaru fil buyut jigéen ñi ñu sax ci biir kër yi bañ di ko génn lu dul nécessité ak soxla yoo xam ne yu mënta ñàkk la loolu suñ borom moo ñu ko digal mu ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula na ngeen sax ci biir kër yi moytu di génn ci mbedd yi di dem ak a ñëw comme ni nga xam ne noonu la ko cedd gu njëkk gi doon defee ndigle lii nag mu jëmale ko si suñu yaay yu tedd ya di soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ku nekk xam na seenug mbaax fam tolloon seenug laab fam tolloon seenug ngëm fam tolloon waaye teewut borom bi tabaraka wa taala yëkkati ndigle lii jëmale ko ci ñoom maasale ko mu jàll ci mbooleem jigéenu jullit loolu keneen ku dund ci beneen jamono bu ne dana yëg ne kon dafa gën a feddaliku ci àqam ndax yeggut ca ngëm fa ñooñu yeggoon yeggut ci mbaax fa ñooñu yeggoon yeggut ci laab fa ñooñu yeggoon kon des ci kër yi bañ di ko génn lu lu dut soxla boo xam ne moo ko jar loolu mooy daraja bi nga xam ne moom moo njëkk ci xijaab moom mooy bi nga xam ne moo ci gën a matale ndax dafay muur bëti góor yi nga xam ne ay jàmbur lañ te nekk ci biti ñu mën a gis sax jëmm ji ci boppam rawatina nag di gis ci moom taar ñaareelu daraja bi mooy alfasu baynal jinsayni wa adamul ixtilaat góor ñi ak jigéen ñi ñu xaajala leen ci jaxasoo bi ku nekk ci ñoom nekk ca ñam bokkal bu fekkee góor ñi ñu nekk ci góor ñi la su fekkee jigéen ñi ñu nekk ci jigéen ñi la suñ boroom tabaaraka wa taala nee na loolu de daalikum atharu li qulubikum wa qulubihin loolu moo gën a mën a laabal seen xol yéen góor ñi waaye loolu moo gën a mën a laabal seen xol yéen jigéen ñi ba mu waxee ne wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijaab yéen góor ñi su ngeen di laaj jigéen ñi ay jëfandu sax na ngeen leen ko laaj ginnaaw barrage boo xam ne dox na seen diggante séparation boo xam ne dox na seen diggante kon mënta ñàkk ci suñu bërëb yi nga xam ne ñi ngi koy liggéeyee walla sax léeg-léeg ci suñu kër yi nekk goo xam ne xëy na góor ñi dinañ ci bokk nekk ak jigéen ñi waaye ñu bàyyi xel bu baax atteb sharia bi nga xam ne mooy jigéen ñi nañ espacé wu seen diggante ak góor ñi bañ di sëslante bañ di jaxasoo léeg-léeg booy nemmeeku ci bërëbu liggéeyukaay yi da ngay gis góor ak jigéen joo xam ne ku nekk ci ñoom mi ngi góorgóorlu ci dundu diineem waaye nag ñàkkaa bàyyi xel tomb bi nga xam ne suñ borom bàyyi loo nañu ko xel te ne moo gën a laabal seen xol yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi ba da ngay gis góor ak jigéen joo xam ne da ngay foog ne sax ñoo bokk ndey ak baay nekk na lu mat a moytu nekk na lu mat a bàyyi xel. bi nga xam ne mooy darajaab ñetteel bi ci xijaab mooy libaasul mar al muslima inda xurujiha min baytiha aw duxuli ajnabiyin ilayha mooy nag coli gi nga xam ne jigéenu jullit bi moom la war a sol su demee nag ba war a génn këram ngir soxla boo xam ne moo ko soxal ci biti mu war koo génn moo xam dafay dem jàngi wala dafay dem liggéey wala dafay seeti ay waajuram wala dafay jàngale ji wala dafay digle ji lu baax tere ji lu bon bépp xeetu génn boo xam ne bu yoonal la ci moom bu demee ba di ko war a génn nag ana colgan la wala génnee kër googu wala nag su fekkoon ne sax mi ngi ci biir këram des fa te génnul waaye góoru jàmbur war koo fekk si biir kër googu nekk fa ak moom ana gan col moom la ko war a fekkee col googu it suñ borom tabaaraka wa taala ni nga xamee ne noonu la ko santaane booyalu ko rek bàyyee ko ak jigéen ñi ne leen dem leen wax naa leen sàng leen seen yaram waaye ku nekk na tànn na mu bëgg a sàngee yaramam mu sàngee ko yaramam déedéet moom moo teg ay condition teg ay charte yoo xam ne daf ne col gi kat yow mi nga xam ne dem nga ba xam ne man maa ko santaane xamal ne col gi nii la war a mel mu nekk gi nga xam ne moom laa gërëm col googu ay chartam bi nga xam ne moom moo ci jiitu mooy istiaabu jamiil badan illa mastusni col gi nekk loo xam ne lu daj mboolem yaram bi la lu dut li nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom la ci seppi li nga xam ne moom la seppi ci col googu ne may naa ko jigéen ñi mën nañ koo génnee borom xam-xam yi nee nañ mooy xar kanam bi ak takki jara yi loxo yi li ko commencé fii ak cëlmaay bi ànd ak ne boroom xam-xam yi sax am na ñoo xam ne loolu dañ ne lu war la loo xam ne jigéen ji daf ko war a muuraale borom bi tabaaraka wa taala mu ne walaa yudniina walaa yubdiina ziinatahunna illa ma zahara minha jigéen ñi de bu ñu génnee ci seenu taar lu dut loo xam ne la ca feeñ la la ca feeñ googu boroom xam-xam yi tekkee ko ne mooy xar kanam bi ak takku jara yi borom bi tabaaraka wa taala dellu wax ci aaya bi nga xam ne jiitaloon nañ ko sànq wax yonente bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa ayyuha nabiyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai lmuminina yudniina aleyhinna min jalaabibihin yow yonente bi waxal say soxna waxal say doom yi jigéen waxal jigéenu julli ñépp ne leen nañu wàccee seenug sol loolu jàngal ñu li nga xam ne noonu lañu war a amalee col gi si beneen aaya borom bi tabaraka wa taala wax ne wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihin jigéen ñi nañ wàccee seeni muuraay yi nga xam ne moom la ñuy jiital ba mu wàcc ci seeni dënn muur seeni baat boroom xam-xam yi wax ne ñaari yooyu boole leen ci muuraay loo xam ne lu war la aaya bu njëkk bi mooy wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihin mooy jiital gi nga xam ne jigéen gi moom lay jiital muuraay bi wàccee ko ci doqam mu ñëw muur dënnam mu indiwaat beneen aaya bi te mooy yudniina alayhinna min jalaabibihin nañ jël beneen muuraay boroom xam-xam yi ñi ne day nekk loo xam ne ni lu ëpp sër la walla mu jege ko loo xam ne nii jigéen ji su demee ba war a génn daf koy teg ci jiital bi nga xam ne ni moom moo jiitu woon mu wàcc mën a muur li nga xam ne ni moom mooy yaramam ñaareelu charte bi mooy col gi nekk loo xam ne lu yaatu lay doon bañ a doon loo xam ne lu xat lay doon ndax col dana yegg ci foo xam ne ci xataay su yaraaxut ba mën a génnee li nga xam ne moom mooy cër yi tamit dina melal cël bu ci nekk nam toll loxo ya tànk ya ak yépp moo tax ñaareelu charte bi mooy col gi nekk loo xam ne lu yaatu lay doon ba du melal cër yi bu ci nekk nam mel ak nam toll ñetteelu charte bi mooy mu bañ a nekk loo xam ne lu yaraax mu nekk lu fatt bañ a nekk lu yaraax col gi su xatut it mën naa yegg ci yaraax foo xam ne ku xool dana gis li nga xam ne moom moo nekk ci suufu muuraay gi loolu it lu mat a bàyyi xel la ñeenteelu charte bi mooy mu bañ a nekk muuraay googu ci boppam mu bañ a nekk taar xam nañ lu waral muuraay gem nëbb taar ma la ñuy nëbbee taar moom su nekkee taar moom ndax objectif ba taxoon ñu waral ko moom mujj naa mat moo tax charte la bu am solo boo xam ne bu mat a bàyyi xel la mooy la ñuy nëbbee taar gi ci boppam moom ci boppam mu bañ a nekk taar moo tax allah yakuna libaasa ziina juróomeel bi mooy col gi ci boppam mu bañ a nekk coluk puuka réew col goo xam ne boo ko solee mu nekk lu fis lool lu xàññaaral lool loo xam ne ku la xool ku ne xoolaat la boo tee woon ci jotaay ku ne attention yépp dem ci yow loolu it bokk na ci charte yi nga xam ne bu mat a bàyyi xel la boo xam ne diine lislaam buggul ko ci col yent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne képp koo xam ne dafa sol mu bugg puukarewu fii ci àdduna ak yow ëllëg yowmal qiyaam mbubb moomu danañ ko jafal ci safara solal ko ko danañ ko ko solal sànni ko ci safara danañ ko ko solal sànni ko ci safara juróom-benneelu charte bi mooy col gi ci boppam bañ a niru coluk góor ndax xam nañ ne am na ci ay solaay yoo xam ne suñu mbokku góor yi ñoom ñoo ko ràññee ko lépp loo xam ne lu jëm ci góor ñi la ci ay sol jigéen ji war na koo moytu ci solam ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na yàlla de rëbb na jigéen ñi nga xam ne dañuy sol ay colaayu góor comme ni nga xamee ne noonu la rëbbee góor ñi nga xam ne dañuy sol ay colaayu jigéen loolu nag suñ ko waxee mu jëm ci niroole maanaam jigéen ji sol loo xam ne lu niroo ak solu góor la rawatina nag jël mbubbum góor di ko sol léeg-léeg ñu bari ci soxna yi duñ ci bàyyi xel dangay dem ba bëgg a kàbbar julli rek yëkkati benn sirisu alaaji bu borom kër ga rek sol kàbbar loolu bokk na ci yi nga xam ne dafay jur rëbbug borom bi tabaaraka wa taala lu mat a bàyyi xel la juróom-ñaareelu charte bi mooy mu bañ a nekk col goo xam ne bu niroo la ak colu yéeféer yu jigéen ñi nga xam ngeen ne yéeféer yi am na ci ay xeeti sol yoo xam ne ñoom rek ñoo ko jagoo mu nekk ay màndarga ay symbole yoo xam ne dafa jëm ci seen diine bokk na ci charti sol yi jigéen ji bañ a sol colaay boo xam ne bu mel noonu la juróom-ñetteelu charte bi mooy mu bañ a nekk loo xam ne lu ñu parfum la mu bañ a nekk loo xam ne lu ñu parfum la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na bépp jigéen boo xam ne dafa parfum wu génn këram kooku de dañ koy bindal bàkkaaru ku njaaloo yaakaar naa kenn ci ñun du génn ngir fàggu ji bàkkaaru njaaloo waaye nag la muy xeeb parfum ba muy def ci yaramam wala mu def ko ci yëreem génn ak moom dana waral ci moom mu am bàkkaaru koo xam ne ku njaaloo la te mu nekk loo xam ne lu màgg la lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg jigéen ñi da ngay wax ak ñoom ci loolu ñu ne la ah kon su ma génnee di xeeñ nit ñi nag yaakaar naa am nañ ci ay xeetu jëfandikookaay yoo xam ne ku ko jëfandikoo doo génn mukk di xeeñ sa bopp rawatina di xeeñ keneen doo xeeñ sa bopp rawatina di xeeñ keneen kon jëfandikoo yooyu jamono yi ñuy génn yu xeeñ yi ñu denc ko ba ñibbisi si kër gi loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu diine lislaam jàngal. muraay gi suñ ko waxee ak charte yi nga xam ne moom la am waxoon nañ ne mooy ki nga xam ne dafa dem ba nar a génn këram wala nag góoru jàmbur nar koo fekk si si biir këram bu boobaa lay bàyyi xel ci colam charte yi amaa nag su fekkee dafa nekk ci biir këram moom ak borom këram wala moom ak ay mbokku jigéenam wala ñenn ci ñoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala lim na leen seppi leen bu boobaa kenn tënkut ko bu boobaa jigéen moom moom moom sañse bu boobaa jigéen moom moom moom taar bu boobaa jigéen moom moom moom xet goo xam ne nii gu neex la ndax loolu dafa nekk loo xam ne lu borom bi tabaaraka wa taala moo ñaale jigéen la ba tax na ba mu ko tënkee ci col gii nii teewut ibbil na ko yeneeni buntu ne ko yooyu kat may naa la ci nga mel ca nu la neex nga def ci lu la neex mu ne walaa yubdiina ziinatahunna illa li buulatihinna aw aabaihinna aw aabai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna aw ixwaanihinna aw bani ixwaanihinna aw bani axawaatihinna aw nisaaihinna aw maa malakat aymaanuhun aw ittaabiciina gayri ulil irbati min arrijaali aw altifli alladina lam yazharu ala awraati nisaa mu ne ko sab taar de yow jigéen may naa la nga génnee ko ci sa kanamu borom kër taarul ci moom lu la neex ci taar xëy na suñ tànt bu ñëwee ci kanam dinañu jox ci xeeti taar yoo xam ne suñ ko yóbbaloo ku nekk moom insha allah di nga dolleeku kon taarul ci kanamu borom kër gi wala ci seen kanami bàyyi yi moom it taaru leen lu mu leen neexee ci seen teewaayu goro yi góor yi ànd ak ne góor lañ taaru leen lu mu leen neexee seen frères yi tamit kenn tënkut leen ci ñoom bu leen neexee ngeen def bopp neen bu leen neexee ngeen génnee seen taar yi seen doomi frère yi tamit donte ne ay góor lañ moo xam frère yu ngeen bokkal ndey ak baay la wala yu ngeen bokkal baay la wala yu ngeen bokkal ndey la ñooñu itam taaru leen seen kanam seen sœurs yi tamit seen doom yu góor taaru leen ci seen kanam bu leen neexee ngeen dindi seen muuraay ci seen kanam seen moroomu jigéen ñi tamit taaru leen ci seen kanam bu leen neexee ngeen mureeku sax ci seen kanam ñi nga xam ne ay góor lañ waaye yëguñ ci ngóor loo xam ne lu leen mën a fitnaal ci jigéen lañ ñooñu mën ngeen a taaru ci seen kanam mooy ñoo xam ne ni yàlla bindee góor bindeewul leen ko xëy na ci mànkeeb xel la doon wala ci mànkeeb leneen mu ne ak góor ñi nga xam ne nag yeggaguñ ci majeur ñooñu itam mën ngeen a taaru ci seen kanam lu ngeen bëgg bu leen neexee it mën ngeen a mureeku ci seen kanam kon borom bi tabaaraka wa taala ku bari yërmande la ku bàyyi xel jigéen la ci nature bi nga xam ne bu mu bëgg la te mooy di sañse ak di ko feeñal mu am leneen lu mat a bàyyi xel loo xam ne xëy na suñ tuddee xijaab duñ ko mën a tëb ndax lu lëkkaloo la ak moom wala suñ tuddee taar duñ ko mën a tëb ndax lu lëkkaloo la ak moom te mooy taar bi nga xam ne nii bu nopp di dégg la ndax taar bañ doon wax sànq bu bët di gis la li nga sol mu rafet loo xam ne nii lu bët di gis la xëy na li xeeñ tamit loolu it lu bakkan di taaroo la mu koy xeeñ li nga xam ne lu loo xeeñ la mu neex waaye li nga xam ne lu nopp di dégg la ci taar itam borom bi tabaaraka wa taala daf ñu ko bàyyiloo xel ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihin bu ngeen di dox bu leen di dóor seeni tànk bañ mën a xam li ngeen denc ci seeni suuf si ay sañse xëy na nag suñ ko waxee ci jotaay bu ni mel képp kuy jigéen dana xam li nga xam ne loolu lañ ci jublu yamut foofu waaye léeg-léeg it jigéen yi jëfandikoo ci seeni loxo ay xeeti lam yoo xam ne moom it yu am bruit lay doon moom it lu mat a bàyyi xel la jamonoy génn noonu it lu mat a bàyyi xel la sol ay dàll yoo xam ne yu am bruit lay doon ba nga xam ne saa yoo dëggee rek mën a yëngal ki nga xam ne nii moom mooy góor borom bi teg ci ne wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuuna laallakum tuflixuun yéen ñépp de tuub leen dellu ci seen boroom ngir ngeen mën a nekk ñoo xam ne ñu texe ngeen di doon ndax amul kenn ci ñun lu dul dina yëg ci boppam ne ah man de am naa ay manqué manqué ci condition yi nga xam ne sama boroom tegal na ma ko moo xam ci yaatal col gi la moo xam ci moytu taar gi la moo xam ci moytu xat gi la moo xam ci leneen loolu de am naa ci ay manqué manqué kon lii sama waru gar bis ni tey mooy lan jéem a teg charte yi ci sama kanam saa yoo xamee ne dem naa ba nar a génn su ma nekkee ci sama kër nag libre naa waaye su ma demee ba nar a génn nag ma teg charte yii ci sama kanam muy sama seetu bi nga xam ne ci laay seetoo li nga xam ne moom laa war a génnee xool ndax dëppoo na ak charte yi su fekkee dëppoo nañ ma ne alhamdulilah dem su fekkee dëppoo wuñ nag ma jéem a xool manqué manqué yi fan la nekk réparé ko door a génn te tuub nag ci li nga xam ne moom moo weesu ndax yàlla ba muy daaneel aaya bi loolu la ko daanelee tuub leen jëm ci seen borom ngir ngeen mën a nekk ñoo xam ne ñu texe ngeen di doon comme waxtu wi dafa tënku ci lii la ñuy jeexalee ñuy di tuub di dellu si suñu borom di jéggalu bu baax ci xajamuk wax ci ak xëy na ñàkkaa leer bi di wax ne lépp loo xam ne lu ci jub la ñu ngi koy santee borom bi lépp loo xam ne lu ci dëng la ñu ngi leen koy jéggalu di ko jéggalu suñu borom اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إنك أنت الهادي إلى صراط مستقيم هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
Sissoko xabatu sawda ñëpp ko ràññee ci réew mi ñu koy félicité waat bu baax a baax 2009 gannaaw ba mu jàngee ca Fass Touré ba noppi la ñëw fii ci ndakaaru ubbi butigu xabatu sawda 2010 mu daal di koy ubbi Gambie 2011 mu daal di dem Dubaay dem jàngi yokk xam-xam 2012 mu daal di am lijaay sax ci médecine prophétique lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon jàngale à base de plantes naturelles 2013 mu daal di amati beneen lijaasa 2014 mu daal di amati beneen lijaasa lépp ca Dubaay ca école ba nga xam ni moom la ñuy jàngee médecine traditionnelle li nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale yépp ci médecine traditionnelle 2015 mu daal di yokkiwaat xam-xam ca Chine moom Sissoko Habbatu Sauda ba mu ñëwee Chine ñépp dañu daw topp si ko ne waaw kii xam-xamam bii kat ñépp dañ ko war a jëriñoo mu daal di fay ñëw daal di fay def ay kéemtaan ci wàllu plante naturelle ak lépp loo xam ne alayhi salaatu wasalaam moom la doon jàngale mu daal di ubbi nag espace bu mag a mag a mag a mag a mag ca Nord Foire rond-point 26 janoo ak ko ñu yëm-yëm bi yéen ñëpp mën ngeen faa ñëw bu ngeen ñëwee dinañ leen seet seet seen yaram bu baax a baax a baax a baax a baax seet seen yaram seetantal ko bu dee da nga di jigéen jigéen ñi ñoo lay seet toppatool la sa yaram defal la ventouse mi nga xam ne moom ngeen di gis ñu koy def fépp ci àdduna bi ci réewu arab yi ñooñu am wérgu yaram am jàmm am salaam am dal bu dee góor nga tamit góor ñi ñoo lay seet lépp ay produit naturel à base de plante jaaree ko ci médecine prophétique bi nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam doon jàngale bu dee pour jigéen am nañu confiture à base de plante développé yenn parties yi ci seen yaram ay produits yoo xam ni dafay tax nga jeex ay produits yoo xam ni dafay tax nga am karaw am karaw lool am karaw ba jaaxal ñi nga xam ni ñoom nga nekkal ak ñoom nga dëkkal am nañu potu karité boo xam ni dañ ko mixé ak 15 produits yoo xam ni produit à base de plante naturelle la ak xabatu sawda mën nga ci frotter sa yaram say genou buy metti moo ci baax booy am douleur articulaire booy am douleur musculaire am nañu it honey mint koo xam ni da ngay tux cigarette te koo bàyyi buñ la joxee honey mint daanaka cigarette da lay génnal ko nga dëdd ko benn yoon am nañu pompe miracle pompe miracle nag duma leen wax lan la xool leen ko te ngeen dem ci Sissoko Habbatu Sauda mu wax leen lan la lépp luy toroxal seytaan ci sa yaram luy dàq seytaan ci sa yaram lépp lu indi seytaan ci sa yaram da koy dàq te dindi ko bu dee ci ngóor am nañu ay secret pour góor ay secret yu am doole nga doon góor dëgg ay secret xabatu sawda loo xamante ni dañ ko jàng te lépp à base de plante naturelle la bu dee da nga am jafe-jafe nelaw bu dee da nga am stress bu dee da nga am ay jafe-jafe wérgu yaram ñëwal seet suñu boo ñëwee dinañ la dugal toppatoo la seet la ubbil la dossier di la toppatoo bu baax si su ko xabatu sawda ñépp ko xam ci Sénégal ñépp ko xam ca Gambie ñépp ko xam ca Nouakchott ñépp ko xam ca Bamako boo amee jafe-jafe constipation buñ lay wax naan da nga am sukkar wala da nga xorom jafe-jafe yooyu yépp bu nekk am nañu bu koy saafara xaw ma kan de man duma xeeb sama doomu réew xeebu ma ko benn yoon ndaxte kat ba mu demee Chine dañ ko topp ndiiraan ba mu demee Dubaay dañ ko topp ndiiraan ba noppi it ñooñu di fa jóge di ñëw di jël si si xam-xamam kon nag man xeebu ma ko dem leen gaaw mu defal leen consultation xool leen woo leen ko ci 77 661 52 32 wala 77 866 34 78 wala 33 820 34 86 Sissoko Habbatu Sauda ca Banjul ca Serekunda ca Bamako ca Nouakchott ca Bakel fii ci Ndakaaru seeti ko mu dalal sa xel dalal sa xol sa wér-gu-yaram gën a am solo si su ko xabatu sawda ñi koy wër a bari ñi koy seet a bari ñi koy topp ñoo bari waaye lépp à base de plantes naturelles ak li alayhi salaatu wasalaam jàngale si su ko xabatu sawda jërëjëf ci sa laa biir ak sa baax ak sa bokk ak say toppatoo doomi réew mi ak doomi àddina